Audio Jungle. li na a fës ci bopp xabaar yi nag lañ koy door rek manifestation yi nga xamante ne door nañ ko ci biir réew mi niki tey jii nag am na ab étudiant boo xamante ne na ci ñàkk bakkanam niki tey ci aljuma ji foofu ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ginnaaw nag bi ñu doon xeex li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle yi nga xamante ne rek dañ ko daal di reporté mbir mu nu mel nag gox yi fasante ko ci biir réew mi yëpp daal dinañuy wàcc niki tey ci aljuma ji nag wane seen naqar waaye nag woo nañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy société yi ak parti opposition bi yëpp ñu daal di rek xeex ngir nag nag élection yi nga xamante ne rek moom lañu daal di dàqandi eh, ba 15 décembre prochaine bi waaye nag jamono ji bilan bi daal dinay métti lool ndax am na ab étudiant boo xamante ne rek daal dina ci ñàkk bakkanam ginnaaw bu mu amee ay gaañu gaañu yu métti ginnaaw ñu waxee ne nag foofa ca diwaan bu Saint-Louis la doon eh, jàngee ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaral ko aljana jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification ngir amaate